ñu japp né pandémie bi presque lu tolok 250 millions ci ay emploi ñak nañ ko à travers le monde euh, ci année bi ñu génn année bi ñuy dugg muy 2021 aussi ñu ngi ciy ragal lu tolok en tout cas 130 millions yo xamné sen seen emploi dañ ko dafa menacé lolu étude la boo xam OIT moko ko Madame, ci ñooñu ñuy wax nag ñi ci gën a am ci suñu par exemple mooy ñi nga xam ñu tourisme ci wàllu hôtel yi ci wàllu restaurant yi ci wàllu transport aérien ak transport euh, public sax ci wàllu industrie maanaam industrie nga xam dañuy soxla manufacture commerce commerce d'une manière générale euh, nous avons dit au Sénégal, nous avons 80 000 travailleurs impactés par la COVID-19 et euh, que nous avons dit Malgré l'ordonnance que chef de l'État a au démarrage de la COVID-19, le 8 avril 2020, nous avons dit ordonnance boobu ñetti weer rek la waroon durer te jàpp nañ ne gis ngeen ne ñu ngi ci Covid bi ba léegi lu ëpp un an loolu moo tax dañu waxoon ci ordonnance boobu ne entreprise yi buñ profité ci Covid bi pour di licencier ay liggéeykat pour motif économique wante terewul euh, fi mu nekk nii liñ ci constaté ci euh, tey secteur yu bëri surtout yi ñu yi ma doon lim léegi. Euh, entreprise yi commencé nañ di def ay licenciement surtout euh, ci période yi ñu toll situation travailleurs gëna gën lu ëpp plus de 60 pour cent en tout cas ci kat yi bu ñuy xool daanaka ci contrat ou intérim la ñuy nekk yoo xam ne amuñu benn protection sociale maanaam buñ ñu feebaree duñ am lu leen lu ñu fajoo bu defee accident de travail maanaam day misi euh, caisse sécurité bi leen jël en charge Etcetera, etcetera, et cetera du ñu am retraite etc. donc liberté yi nga la liberté, sauvegarder pour liggéeykat yooyu tant que amuñu protection boobu duñ ko et alors que constitution du Sénégal dafa garantir euh, droit yooyu yëpp pour liggéeykat bu nek euh, ci suñu réew ñu coalition des centrales syndicales day nakarlu di condamner en tout cas lépp loo xam entreprise yi chef d'entreprise dans l'hôtellerie nous ñu ngi koy licenciement pour motif économique yi ñuy def actuellement. Euh, pour dalal aussi climat social nous ñu ngi woo état bi mu appliquer accord yi nga xam signé ak organisation syndicale yi nga secteur yi nga xam secteur enseignement secteur de la santé muy justice muy collectivité territoriale les transport ak les secteurs qui nga vraiment état signé na ak euh, liggéeykat convention